Abdoulaye ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyantoo yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu dialogue national bi ni ki démb génn nañu communiqué nee nañu lu toll ci fanweer ak juróom benn ci ay poñ yoo xam ne doon nañu ko waxtaane am na lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne ak déggoo am na sa am na lu toll juróom-ñett yoo xam ne déggoo wuñu sa kaay gi di réew mi ko di cee yi nga xam ne déggoo wuñu si waa dialogue national bi jël nañu ko jébbal nañu ko njiitu réew mi di président Macky Sall yéene kaay gi di Walf Fadjri juróom-ñetti poñ yi nga xam ne ak déggoo amu sa ci ci biir dialogue national bi te jox ko njiitu réew mi di président Macky Sall ba léegi nii maanaam yeyul yàbbi sa mbir ma yéene gi de la turbina xëy wax ci ñi nga xam ne ñooy béykat yeeg jafe-jafe yi nga xam ne jamono jii moom la ñuy dund ak njàqareeg kiis bi nga xam ne moo leen dugg ci taw yi nga xam ne jamono jii gisaguñu ko ñi nga xam na ñooy béykat yi maanaam taw lañu ñu soxla te ay semaines yu bare bari ma ngi nii maanaam taw la te nag li nga xam ne maanaam mooy sàq yi sàq yi vide béykat yi lépp loo xam ne yor nañu ko denc nañ ko ci suuf te ba léegi ni tawagul yéene kaay yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy baykat yi en tout cas jamono ji jaaxle nañu lool rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk diiwaanu Saloum Ndukumaan ak Sina yéenekaay gi di évidence nee na ministère bi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mbay mi syndicat bi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi ñoom nag ni ki démb dañoo waxoon ne dañuy amal li nga xam ne mooy ab gréwu xiifal waaye nag loolee teg nañu ko si suufa ginnaaw ay médiation yoo xam ne daan na say am li am ci gi di la salu doy waar a doy waar la docteur Khadija Diallo mi nga xam ne moo jiite centre bi ñuy lu jëm ci coronavirus ci hôpital Fann def na ay révélation nee na ñi nga xam ne ñoo amee grippe 99 pour cent bu ñu leen testé maanaam dañuy coronavirus yéen kay gi du l'observateur nee na Covid 19 bi tax na bëri na ñoo xam ne ci pharmacie yi la ñuy dem maanaam jënd ay médicament di ko jëlal seen bopp te loolee danger la maanaam musiba ma bu kumba gu rëy la ndax mën nañu see amee hépatite mën nañu see am ay jafe-jafe cardiaque yéen kay gi di réew mi quotidien nee na li doy waar ci réew mi am ñoo xam ne dañuy joxe ay faux test rawatina ñi nga xam ne ñooy tukkikat yi yéenekaay gi nee na logo IRESSEF moo sa nekk waaye IRESSEF ni ko démb ñoom seen yoon nekku sa seen ñi nekku sa nee nañu sax danañu porte plainte yéenekaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu askan wi jamono ji maanaam xam nañu nag loraange yi nga xam ne coronavirus maa ngi koy defa moo tax ñenn ci askan wi jamono ji maanaam ñoo ngi riir wuti fi nga xam ne mooy centre yi ko ñekkoo yéenekaay gi de la Témoin xëy nag wax ci lu jëm ci wàllum ubbi liste électorale yi maanaam bind mi journal bi nee na dana ubbeeku fanweeri fan ak benn ci weeru suleta ñu fas yéene koo tëj ca sàttumbara 2021 yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na ci biir APR bëri na ñoo xam ne nee nañu candidat la ñu ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenekaay gi nee na li nga xam ne mooy bëgg-bëggu Macky Sall ak ñenn nit ñu doxi gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo dëkk Ndakaaru ci gox bii di Zone A ak Grand Dakar askan wa nelawutuñu ba yandoor la ko waral mooy agresseur yaak bandi ya nga xam ne ñoo fa nekk di jaaba jonge di agressé askan wa ak di sàcc li nga ne mooy seen moomeel la yéene kaay gi ne na mooy bandi yi nga xam ne moto la ñuy yor journal bi di Les Échos xëy duñu xabaar naan ñoo association de malfaiteurs ay nit ñoo xam ne dañoo lëngoo di def ay ñaawteef ñoo def ñaawteef bu doy waar a doy waar benn malien boo xam ne gars yi dañu ko teg loxo séquestré ko kidnappé ko ba pare di ko fitna la laaj ay mbokkam lu toll ci neuf cent mille francs ngir nag ñu man koo bàyyi yéene kaay gi di Libération xëy duñu xibaar naan ñu bande filao yi nga xam ne ñoo nekk géejuwaay dafa am lu toll ci neuf hectares yoo xam ne syndicat bi nekk impôt et domaine na ak agent yi nga xam ne ñooy liggéeyee cadastre ñoo ko ngar daajoo bi nee na nag suuf soosee nga xamante ni gars yi jëloon nañu ko état bu Sénégal daa dinay xotti décision bi nga xamante ni moom lañ leen joxoon ngir nag ñu séddale leen suuf soosee yéen i kaay gii la témoin yi ak las xëy si exonération fiscale 2015 2019 yéen i kaay gi nee na lu toll ci 3500 milliards yoo xam ne ma ngi jayeex-jayeexi maanaam ci ngelaw li i kaay gii di 24 heures nee na dépense fiscale yi manque à gagner la lu milliards yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na xale yi nga xam ne ñoo doon jéem a ci benn daara ci Touba am na kenn koo xam ne ñàkk na fa bakkanam yéenekaay gi di sunu làmb nee na combat Balla Gaye mu 2 ak Bombardier ndax dina am ak coronavirus bi Balla Gaye numéro 2 nee na en tout cas li am ba desal Bombardier su ma jàkkaarloo ak moom dinaa ko defal bagage te nag dama ko yóbbu sax retraite loolee gën a gaaw dama ko yóbbu retraite ndax Bombardier mbër mu màggat la